ñuy wuutante ci suñu kaw jëree doomu aadama yi di man ci fàttaliku di ci mën a dabal la leen rëccoon waaye borom boobu it moom moo def adduna bi ñuy dund muy ay bis yu tegaloo yoo xamee ni nii léegi mu doon loo xam ne nii luy jeex la ay bis yu néew mooy adduna waaye gannaaw adduna suñu borom ma ngay xaare ay jaamam ci kër goo xam ne nii ku fa dugg du jeex ba faw abadan ay milliards milliards amul fu mu yem mooy aljanna yàlla yàlla def ko suñu wàccuwaay waaye ñu jaaruloon fa ko neex am na kër goo xam ne ma nga leen fay xaare kër googu it du fay ba faw te loolee mbokk moom mooy la nga xam ne mooy sawara su ko defee yow doomu aadama bi nga la waay xamal ni adduna boobu li muy gàtt-gàtt sëg dund moo ko gën a gàtt ca mooy ay bis la yu néew yoo xam ne moom la la yàlla tegaleel ay yéen mbokk julit xam leen ne suñu bisub tey bii moom mooy bis bu mujjoon ca atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca ba yonent bi salallahu alayhi wa sallam gàddaayee makka daa di jëm madina mi ngi noonu kon bisu suba bi inshallah allah nara nek at mu yes ci atum l'islam donte ne ni so delu won ci nga xamini ni nii ñoom nañu seen borom heure bu ñuy jéxal am at dañ koy jeexale félicité fecc naan chaxan waye mbokk yow julit ndax loolu moom mooy sa taxawaay déedéet mbokk julit jullit moom at mu jeex day nekk tiitaange ci moom mooy moo xam ne kat man ñaata la ma yàlla utaloon ci at xawma ko même bu doon ne juróom-ñaar fukk la mooy am na benn bu dem bu doonte ne fanweer la am na benn bu dem loolee kon moo tax jullit moom day def ay taxaw seetlu fu mën a toll ci waxtu woo xamee ne nii am at day jeex suñu boroom yàlla jël wa mu ne ay yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm ragal leen yàlla ku nekk ci yéen na waajal la nga xam ne moo koy xaar bu ñëwee ëllëg yowmal qiyaama ragal leen yàlla seen boroom yàlla dara réeru ko ci li nga xam ne yéen ngi yéen a ngi koy def loolee xam leen ni bu leen bokk mukk ci ñi nga xam ne fàtte nañ yàlla yàlla fàtte loo leen la leen di jëriñ ca àllaaxira borom bi mu ne ñooñu ñooy ña nga xam ni ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy ña gënnu topp suñu borom nag mu ne xam leen ña nga xam ne dañoo nekk ca yoonu ajjana ak ña nekk ca yoonu sawara duñu mën a yem mukk ña nekk ca yoonu ajjana day ñoom ñooy ñay texe adduna ak alaxira ay yow doomu aadama xamal ne suñu borom yàlla moo la bind moo la bind ci coono buur nga président nga milliardaire nga général d'armée nga loo mën a am ci àdduna yaa ngi xëy di sonn imma nga sonn ci lu neex yàlla walla imma nga sonn ci luy merloo sa boroom doomu aadama dund àdduna gi taxaw amu fi imma ngay avancé wala imma ngay dellu gannaaw waxtu wu nekk am na lu muy feeñal ci yow waxtu wi ngeen tollu fa lillahi alhamd yéen ngi toog ci néegu borom bi di yaakaar njëggalam ak yërmandeem di ko bàkk di ko sabbaal loole waxtu la wu leen jegeel seen borom jëllewaala keneen ka nekk ca leneen it ma nga ca leneen waaye àdduna amul taxaw su ko defee noonu nga xam ne noonu la nokk yi di tegaloo noonu la bis yi tegaloo weer yi tegaloo waaye noonu la addi yit di tegaloo loolu moo tax ba yow mi nga xam ne da ngaa xellu gàlluwaay da ngay bàyyi xel li ngay dund mooy lan mbokk li ngay dund ab jaaruwaay la sun borom yàlla mi ko bind ca xam ko mu ne xam leen ne yéen doomu aadama day maa leen di jaarale ci ay étape génn leen seen biiru yaay ngeen lompañ ma may leen kattan balaa yàgg kattan googu ma nangu ko ngeen màgget balaa yàgg ngeen déggu si ma looloo tax ba doomu aadama bu mu mën a doon doon day bàyyi xel guddeeg bëccëg lan la koy jàngal mooy mi ngi koy jàngal mooy kan amoon nañ kenn ci magi réew mi ñu koy wax musaba bokkoon ci mag ñi nga xam ne ñoo jiitoon alfalaax am na conférence bu mu doon def fii unité dix sept war naa jege fanweeri at léegi ma ngi ca doon jàngale ne ay yow doomu aadama xamal ne jant bi heure bu jógee mi ngi lay jàngal yaay kan mooy jant baa ngi noonu nekk ci fajar fenkagul ñu ne diw day daa ëmb yaa ngi nekk sa biiru yaay kenn xamul loo doon jant ba fenk ne nee na juddu nga waaye amoo benn tàngaay amoo benn kàttan jant ba dem na ba digg njolloor yaa ngi nekk sa digg kàttan ñuy deme dem ba yàgg jant ba jëm tàkkusaan kàttan ga néew dem ba mooju dootul am benn tàngaay ñu ne diw day néeg ba mu nekk léegi dootu fa génn balaa yàgg jant bi sono sono waaye xonq xonq yaa ngi fi nit ñi di wax say mbir di wax say mbir dañuy dem ba mujj doomu aadama yépp fàtte la fàtte la completement ak néew ci jàkka ji ku ma mën limal juróom-ñaari maamam ca mooy nit ñi dañ lay fàtte completement su ko defee loolu la la jàngal moom mi doon wax loolu ba mu faatoog léegi ëpp na ñaar fukki loolu ngay jànge mbokk ci àdduna heure boo xamee ni nii ah jamono mi ngi wëlbatiku suñu borom yàlla ngir bañ àdduna nax nu mu ne gis ngeen dunduk àdduna gi mi ngi mel ni rekk taw bi jóge kaw asamaan génne gàncax gu naat fleur yeeg meññeent yépp am ak tóor-tóor yi ba baykat yi buñ ko xoolee kontaan waaye balaa yàgg mu commencé lax doon mboob ngelaw jóge fële daal di koy sànni loolee mooy misaal bi ngay dund yow doomu aadama yaa ngi nekk sa digg ndaw solu calu yee gën a rafet oto yi gën a rafet dëkkuwaay yi gën a rafet waaye mbokk loolu bis day ñëw nga bàyyi fi lépp dem ngelaw yóbbu ko comme na muy yóbboo tool ba dee ñëw yóbbu la teqale la ak loolu lépp loolu nag moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala doomu aadama yi xam leen ne àdduna bi li fi rek mooy fa moo xam ne daa tasaaroo puukare gu tasaaroo ëppalante ci wàllu alal ak wàllu doom gën a bari la ci ay daraja waaye moog taw boo xam ne daa génne woon gàncax gannaaw ba mu lax gannaaw ba mu wow loolu dong la leen di loolu dong mooy melokaanam amma nag la leen di xaar ci àllaaxira xam leen ne am na la nga xam ne mooy njéggalug yàlla am na fa la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla waaye am na fa la nga xam ne mooy mbugal bu tar e yéen doomu aadama yi xam leen ne dunduk àdduna gi nekkul lu dul loo xam ne nii dafay waraate rekk loolu moo tax ma mbokk julit <clears throat> suñu delloo <clears throat> ca la nga xam ne mooy njànglem suñu mag ñu baax ña nga xam ne nii ñoo ñëwoon ca gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ca fekk ko ñuy tuddee alxasanul basri nga xam ne dañ ne moom mooy sangu taabiin taabiin mooy ñi nga xam ne ñoo doon dund ak sahabatul kiram te ñoo gis yonent bi hasanul basri boobu da daan wax ñoom daan jiite ay waaye xam leen ne yow doomu aadama ay bis la yu ñu dajale ci yow rek li ngeen noonu mbokk julit ay bis la yu ñu dajale ci yow rek bés bu nekk benn bis wadd na bés bu ne benn bis wadd na waaye nag xamal ne bis bu fenk bu ñëw dana wax ak yow ne doomu aadama ñëw naa de musuma ñëw su ma demee nag dootuma ñëwaat ba faw maa ngi lay seet lépp loo def ci man danaa ko seede sa kanamu boroom mi ngi noonu ana yawmun jadid ala amalika shahid faxtanim nii fa inni ila yawm alqiyamati la aud doomu adama gaawal ci man man kat maa ngi dem gaawal ci man def ci man la nga xam ne moo lay jëriñ ca yàlla su ma demee du ma dellisaat ba mukk mbokk loolu ñu bàyyi ci xel suñu àjjuma tey jii moy ajjuma ji mujju ci atum 1443 bis bu jant bi sowe jeexna na dootul ñëwate be ila yumi atum 1443 dootul ñëw be ila yumi zulhijja moy tabaski 1443 dootul ñëw be ila yumi lolé mbokk ñu bàyyi ci xel bu bax lolo tax ku melni abdullah ibn mas'ud bokkoon ci sahaaba yi gënoon a sës ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne man dey amul benn bis bu gën a metti sama xol mooy bis boo xam ne maa ngiy tëdd yéeg ne bis wàññeeku na sama dund ci yëguma lenn laa yokk ci xam-xamu diine mën na loolu moom bisu pertaange laa koy jàpp keroog ca it mbokk mi ngi noonu e waay góor góorlul ba bis boo dund nga yëg ne bis bii bis bu la jegeel sa borom la moytul dund bis boo xamee ne nii yëgoo ca benn yokkute sa wàllu diine waxuma nag bis boo xam ne dalaa delloo gannaaw wal iyaz billah ki nga xam ne mooy ali ibn abi talib mi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko nekkoon rakk ca yonente ba sallallahu alayhi wa sallam nekkoon maamu mboole mi la nga xam ne moom mooy ña cosaanoo ca fatima ali ibn abi talib mas nay xutba la nga xam ne mooy ña ko waroon mu ne ay yéen doomu aadama yi xam leen ni lii nga xam ne nii day muy àdduna dajale na ay bagaasam moom mi ngi dem àdduna mi ngi dem bés bu ne waxtu nekk mi ngi génn di dem dem goo xam ne nii dootu ñëw abadan waaye allaaxira ngi ñëw di allaaxira moom mi ngi jege si xam leen nag ne àdduna am na ay doomam allaaxira am na ay doomam góor góor lu leen nekk ci doomi allaaxira ba ne nekk doomu àdduna mi ngi noonu mbokk julit ca moo di ne ne la nga xam ne mooy doomi àllaaxira mooy ñuy góor góorlu ngir teraanga ya ñuy bëgg am ca àllaaxira amma bu dee ne da nekk doomu àdduna yaa ngi góor góorlu ngir àdduna baax alal ji doy lépp doy waaye fekk fàtte nga sa boroom loolu la borom bi di wax naan bal tusiruuna alxayaata dunya wal axiratu xayrun wa abqa li ëpp ci yéen day dañoo gënale la nga xam ne mooy dundug àdduna ca àllaaxira day moom mooy gën ca mooy lay sax ba faw bokk na lu leen doon wax e waaye xam leen ne àdduna bi ñuy dund mooy palaasu liggéey yàlla du fa xisaab kenn mbokk amul kenn ku yàlla jox payam ci àdduna yéeféer bi bu doon te ne dafa doon gaana ñu koy mbugal téeméeri atit loolu du payam dara melul ne payu gi fer ci àllaaxira amma julit bi nga xam ne daa jaar fa neex yàlla bu nekkoon buur ca moom àdduna yëpp xéewal yëpp mu am ko it loolu du pay abadan pay gaa nga àllaaxira mu ne xam leen àdduna bi su liggéey la pay amu fi àllaaxira gën jëm bisu pay la liggéey amu fa kon góor góorlu leen ci jamonoy liggéey ngiree bi su bañ leen di réglé lu mel noonu la magam ja waxoon du Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu mi nga xam ne nii bokkoon ci xulafa u rashidun bokkoon na ci ay xutbaam e yéen nit ñi day leen xisaab seen bopp bala leen a yàlla taxawal di leen xisaab jéem leen a peese seeni jëf bala ñu leen taxawal di leen peese yowmal qiyaama na am mbokk jullit commerçant bi nga xam ne nii daa xam commerce demal Sandaga ak fu mu mën a doon chaque fin d'année am na ci benn weer woo xam ne dañuy xoolaat seen marchandise ba xam magasin bi mi ngi avancé am mi ngi dellu gannaaw loolu la ñuy tëddee inventaire lu mel noonu it mooy la nga xam ne moom la ab jullit war a jël fu mu mën a toll te mooy xam ne suñu borom yàlla day subhanahu wa taala lépp loo xamee ne nii yaa ngi koy def borom bi nee na dara rëcc mu ci lépp loo xamee ni nii fàtte nga ko suñu borom yàlla mu ne déedéet man fàttewuma ko ahsaahu llahu wa nasuuhu yàllaa ngi la boole ak malaaka yoo xam ne amul lenn loo xam ne yaa ngi xëy di ko def wala nga gont di ko def lu dul ñu ngi koy enregistré looloo tax ki nga xam ne moom mooy ki xel lu dëgg-dëgg mooy kiy inventaire boppam naka ngay inventaire sa bopp mooy xool sa diggante ak sa boroom ndax la nga xam ne war na la ci mboolem julli ya koor ya zakaat ya moytu bàkkaar yu xaraam ya ca la ngay xool ca la ngay déglu ca la ngay wax lu ñaaw waaye xool sa diggante njaboot gi ndax njaboot gi taxaw nga jox ca na yàlla bëgg nga taxawa ko ak ñoom jox leen seen àq ci àdduna na am waaye la gën a màgg mooy contrôle leen ba ñu bañ a tege ci yoonu sawara contrôle leen ba ñu nekk di jëfee la nga xam ne mooy ndigalal yàlla waaye doomu aadama yi mboola seen baa yoraloo kenn ay bor yoo fayul baa yoraloo kenn ak boo ko waroon a jox joxoo ko baa nekkoo di yàq deru doomu aadama yi guddi ak bëccëg baa nekkoo di tuumal doomu aadama yi lool lépp lépp loo xam ne yàlla natt woon na la ko nga góor lu tuub ko tuub gu sell ba avant ngay dajeeg sa borom sa borom yàlla mooy arhamar rahimin képp koo xam ne mujjug dundam da koo dégleel tuub gu sell dellu ci siraatul mustaqim la nga xam ne moo jiitu woon ci lu bon yépp yàlla dana ko ko soppil defal ko ko la nga xamee ne nii moom mooy ay tuyaaba ju koy xaar yowmal qiyaama su ko defee mbokk doomu adama xamal ne day la ëpp ci ñoom dañoo perte comme nañu ko suñu borom yàlla waxe nee na mi ngi waat ci temps la doo ëpp ci doomu aadama yi dañoo perte lu dul ña nga xamee ne nii gëm nañ gëm gu sell loolu it mooy kon la gën a màgg la nga xam ne moom ngay xool mooy ngalawaay sa ngëm yàlla ba dëppoo nag na ko yàlla gërëmi ca ngeen def attention yonent bi alayhi salatu wasalaam ci xadis boo xam ne abi hurayra soloo na ko imaamu muslim génne ko ci saxiixam nee na gaaw leen jamono ngi ñëw sama gannaaw day ànd ak fitna boo xam ne ka qita il laylil muslim day mel ni guddi gu lëndëm këriis da ngay gis koo xam ne day xëy nekk ab julit balaa ngoon a mu nekk yéeféer koo xam ne ci ngoon yéeféer la balaa xëy subaan koo xam ne ci ngoon julit la balaa xëy subaa nekku yéeféer lu waral loolu mooy day jaay diineem ca moo ne day lam koy jaaye mooy lu néew ci àdduna looloo tax ba mbokk julit moytu leen bàyyi leen seen xel lépp loo xam ne àdduna la la nga xam ne mooy woote ci wàllu politique woote ci wàllu alal woote ci wàllu daraja lépp loo xamee ni nii gis nga lii méngoowul ak sa diine ngal la waaye moytu ko si kemtaleel kattan sa diine ak sa pas-pas mooy la gën a màgg loo xam ne moom ngay sàmm borom bi subhanahu wa taala yét ne xanaa lu dul nga xam ne bañ gëmee dañoo jëf lu baax ca loolu it lum lay jàngal mooy góor góor lul sa kemtaleel kattan jàngal sa diine ji taxawel sa diine ji jëfel sa diine ji waaye bokk ci ñi nga xam ni dañuy diglu lu baax bokk ci li nga xam ne dañuy teru lu bon cay muñ nattu yi nga xam ne sa borom yàlla moo koy nattu ay jaamam lii mbokk jullit da gis ne suñu borom subhanahu wa taala loolu la wax ci saar bu màgg boobee nga xam ne jàpp naa ne la ëpp ci jullit ñi mokkoon nañ ko te mooy wal asri inna al insana la fi xusr ba baa fa nga xamee nii moom la saar ba di jeexe yéen ndaw ñi heure bu ñuy wax ci dunduk àdduna ak gàttuk àdduna lu bëri ci yéen dañuy jàpp ne mag ñi ñoom ñooy ñoo yeyo loolu mbokk déedéet waaye dee leen doxantu armée li yoof ngeen xool tableau ya nga xam ne dañ ko fa samp da ngay gis koo xam ne nii wallahi dañ koy bind bébé tel ne le jour tel dès le jour tel keroog bu mu juddoo ca la dee gis koo xam ne un mois la am kii dix ans kii vingt ans kii trente ans loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de moom na ci mbaggu ken na ci ndawña muy abdullah ibn umar daaji nako ay abdullah ma ngi lay dénk kun fi dunya ka annaka gharib aw abiri sabil melal ci aduna ne da nga don ko xamni ni ab immigré nga mbokk bépp immigré war nay bàyyi xel la nga xamni ni mom moy rewam war nay bàyyi xel la nga xamni ni fa la nek xam fi fii nekkul sama saxuwaay wala yonent bi alayhi salaam ne sax melal na ku fi jaar di jàll koo xamee ni nii daa jógoon beneen dëkk escale di jàll ca moom loolu la doon wax sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ko Omar ibnul Xattaab ñëwee fekke ko ci néegam ba néeg boo xam ne néeg bu yemamaay la mi ngi tëdd ci benn basang sallallahu alayhi wa sallam ba basang baa ngi tal ca wetam ya Omar daal di jooy mu ne ko waa Omar lan la mu ne ko sama xel dafa dem ci buuri faris yi ak ruum ak pale yañ nekke yow yaay tànneefu yàlla ak nii nga nekke yonent bi jóg na ko ay ibnu xataab mbaadu da danga nekk sikk sàkk ci sa diine mooy yow xanaa tànn ñoom yàlla jagleel leen àdduna ñun yàlla jagleel leen alaxira mu ne ko Omar man day mag àdduna mag àdduna meluñu lu dul ne koo xam ne daa romboon ci benn àll di tukki mu gis benn garab mu ñoo toog noppalu tuuti ngir continuer lii moom la jàppe woon àdduna te sallallahu alayhi wa sallam ak wax dëgg mbokk sallallahu alayhi wa sallam ñaata la dund ci kaw suuf mi ngi dund 63 ans ca loolu mooy atu weer wi man nga wax 60 ans lu dund yonente bi alayhi salaam 60 ans lu dund la dund ci atu jant bi waaw ba mu faatoo ba léegi ñaata la def ci biir suuf def na junni at ak ñeenti téeméer ak fanweeri at ak ñetti at yonent bi def na ko ci biir suuf 1433 ans def na ko ci biir suuf ci 63 dund ci kaw la wax loolu loolu moo ba nga la dem nekk ab euh, labbe dudd la wallahi naam kër yi oto yi ak baax compte bancaire yi ak baax waaye ngal na waaye lépp na doon loo xam ne yóbbal la tazawadu fa inna xayra zadi taqwa lépp looy am ci àdduna na doon moyen booy sukkandiku ngir jege sa borom jaamu sa borom fexel ba àdduna nga yemele mille franc ba ak milliard ba bu la ci lenn lenn dox ba yàqal la la nga xam ne sa waru gor la sa diggante ak sa borom ndax bari bari la bàyyi fi gannaaw néew la néew la bàyyi fi gannaaw la nga xam ne moom ngay fekki mooy la nga xam ne moom nga siq ak sa borom te boo demee ci moom amul lenn loo xam ne dana la fa mën a xettali du alal ja du doom ya du sëriñ sa du dëkkandoo ya yàgg yàlla kese yéene des looloo tax leneen lu dul yàlla bu mu dox mukk sa diggante ak sa borom jalla wa ala mbokk heure boo xam ne ñi ngi nekk di séentu at mu yees di taqalikoog at mu yees taxawaay bii ku nekk ci ñun war na koo fàttali boppam looloo tax ñu ngi ñaan suñu borom jàll wa ala at mii nga xam ne nii day jàll nañ ko aka bari ci ñun xamoon yàlla jël na leen ñi ngi dund ci ñu ngi dugg ci biir suuf tey ñun ñii ñu ngi koy waaj a génn waaye mbokk lu mu yàgg-yàgg bisit danay am at boo xam ne danañu yóbbu su ko defee at mii nga xam ne dañ koy génn mboolem luñ fa defoon ci ay njuumte yal na yàlla jéggal ñu ko mboolem suñu gàttal ñu yal na yàlla jéggal ñu ko mboolem suñu jaamu yàlla yañ ci defoon yal na yàlla nangul ñu ko waaye at mii ñu dëgmal yalla yàlla teral ko ci ñun ci ñu jébbalul ko nam ko gërëmi yàlla def ko atum jàmm atum xéewal dëppal nañu ci ak lépp loo xam ne day jur ngërëmam féewal nañ ci ak lépp loo xam ne day jur fitna yalla na doon atum naataange ñeel ñu atum naataange ñeel suñu réew atum naataange ñeel ab dilit fépp fu mën a nekk اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريدا الا شفيته ولا